mbokki Madina Fall yëpp ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi teew yëpp muy ñoom Serigne Lo ñoom sëñ Talla ñoom Baye Cheikh ak ñi fi teew ñëpp di nuyu aussi soxna ñaañakan mi di masawu ci coono bi am ñu mu déggee bés bi ñëw na teew di nuyu ñi fi teew ñëpp bu ñu limee juum Nous mag ñi muy ndaw aussi mouvement la grande rencontre YEP, ci kaw comme Nico ko As les infatigables les soldats pour la société les soldats pour le développement Nous c'est l'espoir c'est la jeunesse qui agit c'est la jeunesse engagée Nous les di féliciter

di nuyu aussi wa Madina Fall yëpp ñi fi teew ñëpp bu ñu limee juum waxtu wi dafa gàtt benn kàddu moo ñu fi indi mu di le 24 au soir notre frère notre grand frère Idrissa Seck va accéder au palais. dama ni palais ba nekk ca Dakaaru jàkkaarloo géej gi santul Sall santul Diouf santul Wade xam ngeen nu mu sant. senegal la sant Madina Fall ku leen xam-xam ni ay jàmbaar ñoo ko sanc Madina Fall du ay caaxaan Madina Fall 1954 la ko sëñ Mor Talla sanc boobu tey mën nañ fi tudd ay kàngam yu bari ñépp jaar fi buñ doon fàttaliku mag ñi duñ fi jóg ñooñu ñooñu yar ñoo ñaanal dëkk bi ñoo ñàkk dëkk bi ñoo nàmpal dëkk bi jom jooju fulla jooju fayda jooju bu mu ci ñun ñun waruñu mujjee puso bi mu réer nanu xoolaat suñu bopp xam ni Sénégal kenn ëpp ëppalewuñ ci Sénégal ñun ñoo ko moom ay seeni doom ñoom ñoo nekk fu ne ñi nekk di jiite dëkk bi ëpp ñu leen xam-xam ëpp ñu leen ngor ëpp ñu leen jom war nañu xoolaat suñu bopp lan moo tax ba nous ñu tollu fii ñu tollu ndax dañoo war a toog rek di xaar ndax dañoo war a toog rek di déglu ndax dañoo participer au rendez-vous du donner et du recevoir défendre le Sénégal de toutes nos forces défendre le Sénégal de toute notre âme fexe ba dëkk bi lépp luñ ñu fiy décider ñu man ci bokk wala dañuy toog di seetaan. sunu engagement defuñu ko ngir politique suñu engagement wekkuñu ko ci kenn dañu nekk ay jeunes xam ni bu ñu bëggee soppiku am ñu toog di seetaan gàcce lay doon ci ñun yàgg naa wax ni muy fii muy fu mu mënti doon buñ ñu joxee wala ñu jox ñu moyen dinañ engagé auprès des populations dinañ engagé wu changer les choses on a les capacités jàng nañ ko on a les moyens et on va le faire. C'est pourquoi c'est toujours un plaisir. Nous andak jeunes yi nga ils sont engagés pour changer les choses dama ne gars ñi na ngeen jóg bu leen toog di xaar bu leen toog naan kii lay xaar mu jëme ma fii wala mu jëme fële na ku la la nga man muy tailleur bi muy menuisier bi muy baykat bi muy jigen ci nga xamni mi ngi dem ci marché bi na ñepp jóg ñu jàpp ci Sénégal mu dem na ñepp jóg ñu jàpp ci magnafal mu dem Gueye Bamba dafa nekk sen mbok nekk fi ngeen di ko gis waaye ku dem ba lepp lépp mo tax muy jóg mu di fexé ba Sénégal nu mu soppiko dina dinaa expliquer touti lan moy suñu engagement ba tay ñu échéance dañuy jàppale le frère et ami Idrissa Seck

musiba dina am ci dëkk bi ci nii ba ci naa defuñu politique nekk fi di wax lu ñaaw pour pourquoi le choix sa Seck lan moo tax ñu bëgg a jàppale le frère et ami Idrissa Seck parce que wax ngeen ko damay def saa yu ma ñëwee Thiès xool ko du ma gis dara lu soppiku ay at a ngi nii saa yu ma gisee Thiès dafa mel ni day gën di tellu ginnaaw ma ne est-ce que kon gouvernement bii fi nekk mi ngi xalaat njariñu Thiès su ma duggee Thiès taw ba yegg si Madina fal li ma fi gis ñu tabax ko fi 2003 la fi mujjoon li ñu fi yokk ci ay tali 2003 la woon dafa mel ni dëkk bi dafa taxaw mel ni gàncax goo xam ne dañ koo ji arrosé tuñ ko ba mu ngi dee nañu continuer kon ci sama xel mu gàtt ma ne li yi mujjee am Idrissa Seck mii moo ko fi def bu ñu weesee loolu mu am juróomi candidat

li leen ko waxee xaaruñu ci Idrissa Seck xaaruñu ci keneen dañ koy def te yàlla tax buñ ci ànd ak ñoom dinañ ko def buñ ci ànd ak ñoom dinañ ko def waaye ginnaaw population yi lañ fi nekkal am nañu ay analyse dañ ni leen li ñu ni buñ ko defee Sénégal jëm kanam moom mooy voté le 24 le président Idrissa Seck mu jël palais bi Sénégal jëm kanam liko soxna si waxe su ngeen xeye dimanche bi di ñew im semaine mo ci dess ku ngeen gis len ci ak ñom ku ngeen gis ne len nañ len waxtan suñu bir xol suñu carte bi buñ ko dugale ban njariñ lañuy amal waxtan suñu bir waxtan liñu bok defu luñ ko Idrissa Seck luñ ko kenen suñu bop lañ koy defal suñu askan lañ koy defal suñu dom lañ koy defal dugal len carte bi Idrissa sek gagné Sénégal sopéku ñu jëm kanam té Seydou Seck dina gagné alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di ñaan yalla nga fi yag ci wër ku fi tew neul amin yalla nga ñu yag jité Serigne Cheikh ci barke Serigne Mbayloo sa sa sa mam ci barke mam Waliyu yalla nga ñu yag jité barke Cheikh ibrahim Fall yalla nga wër yalla nga fi yag ci barke Cheikh rafal barke Serigne jëm jii nag day xale boo xam ne xale bu am bu nu am yaakaar ci moom la mu dëkk fii ci Médina Fall sëñ Mor Lo di baayam yow mii toog yaay baayam mu jàng nekk intellectuel yàlla def mu am lu mu bëgg te li mu bëgg waa dëkk bi yëpp am yaakaar ci moom ni lii war na koo mën a am yàlla na ko yàlla def ci barke Sëñ Touba di dimbalee ci dëkk bi di joxe ay don di di def ay GIE yoo xam ne ñëpp mu ngi leen di dimbali chaque année mu woote ci fii ci Medina Fall teg valeur boo xam ni képp kuy doomu Medina Fall bala ngaa ñibbi da nga ci bég te loolu foog naa ni mbégte loo yéen gépp la ndax moom mii nag loo yéen la sant loo la sant ngaari ma sàmba rey sa gileem reere ngaas xale yi jàng moo leen jëndal ay fourniture di leen jox xale yi Medina Fall yëpp daanaka bu ñu taxawee ñëpp ay am kon loolu seen mbégte la yéen waa yéen nga ma sàmm ma bëgg nga ñaanal ko ci barkab sëñ Mbay Lo yàlla na ko yàlla def ministre yàlla na ko yàlla def ministre mu ni woon nag day ñëw ànd seeg Idrissa Idrissa mi nga xam ne mooy doomu Cees di doomu dëkk bi lii mu def ngay bàyyam mu ni danaa la tàggu ba pare bala maa dem fenn moo war a suñu tànk yi ma sàmm ñu bëgg nga ñaanal ci barke sëñ Mbay Lo nga yàgg fi lool nag yow mii ca wér moom mii mu nekk ministre ci barke sëñ Mbay di sagub loo yéen ndax loo dafa war am dara loolu dafa war a am bu amee intellectuel war na am koo xam ne war na fee génne liggéey ci gouvernement bi te Medina Fall gi amuñu kenn nag sëriñ bi koo xam ne mi ngi liggéey ci gouvernement bi ci Medina Fall kon war nañoo am koo xam ne war naa dugg ci gouvernement bi liggéey ci ñoo la koy diis na ngaari ma sàmba nga ñaan lépp yomb. day sunu kër maam muy kër Cheikh Ababacar Lo di ñaanal sunu wayjur wii di bàyyi sëriñ Cheikh Lo sunu borom yàggal ko fi dëgëral ko fi ba li mu na ma liggéeyal maam ju baax jooju sunu borom jàppale ko li ñu siy dolli rek mooy fi day kër goo xamante ni ñëpp fi ñëw te sëñ bi dafa tëdd njaxanaay képp ku fi ñëw nag da nga yaakaar yow kat sëñ bi kat yow rek la ñaanal mais sëriñ bi ñëpp la ñaanal sëriñ bi ñëpp la àndal kon Mamadou bu jógee ànd ak xale yi ànd ak mag ñi ànd ak ndaw ñi ànd ak góor ak jigéen di ñëw di sekk su ñaan defe naa ne loolu sëriñ bi dina ko ñaanal ndax moom doomu sëñ bi la léppam la loolu lañ siy dolli rek du bari ñu jox sëñ bi sëñ bi ñaanal ñu ñu maase dégg ñu ñëpp. ñaaxaat tuuti boo ñu mënee ñaaxaat waaw sëñ bi ne mi leen nuyu bu baax nag di leen siyaara nee na mi ngi leen masaw ci coono yi nee na mi ngi ñaan sunu borom mi dara tëwul nangu jataay bi nangu jataay bi nee na te lii nga sóobu Modou Gueye nee na ànd koog mbooloo mi ñëpp am ci yaakaar te nee na ñëpp am ci yaakaar yàlla bu yaakaar tas nee na bu yàlla bu ci yaakaar tas nee na yàlla mottali yéene bu baax nee na yàlla na yàlla mottali yéene yëpp taxawaay nee na taxawaay yi. incha jiitu na tey ji. nee na jiitu na tey. te booba tey noo ko ciy ñaan. nee na ba tey ba tey dañul di la ñaanal. ndax defu ci lenn loo xam ne ump na ma. nee defoo lenn te tàggu ñëw ba ci moom tàggu ko. GIE muy wax. nee yi ngay yëngu. di ko toppatoo. nee di ko toppatoo. di ci dimbali njabootu dëkk di ci dimbali njabootu dëkk bi. ak feneen ak feneen fii. waaw ah, ñu ciy na ciy sóobu. yëgal na ñëwoon nga ci moom tàggu ko. nee na ñaanaloon na la ci bu yàgg nee te ñaan moom. nee day lu am solo. lu ko waay tàmbalee rek. nee lu ko waay tàmbalee moom ñaan. nee na mujje ko. nee na dinañ ci am yaakaar. nee na yàlla ne ñaan leen ma may leen. nee yonent bi feddali ko. ni ñaan leen seen borom. ni ñaan leen seen borom. te am kóolu téef ni. te am kóolu téef ni. nee am kóolu téef ni yàlla day wuyu ak ñaan. nee na moo tax lépp lu taalibe tàmbali. nee na moo tax lépp lu taalibe tàmbali. nee na lii ma nee dok ndokk bi nga xamee ni li ñëw fi ñaanlu farata la nee te ba nga ciy dugg nga nga séen a cee ñaanlu nee ba léegi foo toll nee dara ump ko ci nee na wayjuram nee sa wayjur la nee na doomam nga nee teyit neex nga doomoo lool am nga yar am ngay teggin am nga dal nee te nangu nga kilifteef. jataay nee na jataay bi xamewuñ ko nii. nee na kon bu ko xamee woon nii dina woo rakkam yi muy sa baay ndaw yi ne ci kër gi yëpp. nee na kon ñëpp danañ fi ñëw. nee na am nga ñëpp. nee li matale. yar ak teggin. ak nangu kilifteef. nee na joxe nga ko ba mu jeex. nee sa wajur teelu sëriñ Mor nee na ku mu meññ ku ne. boo melu woon nee na boo melu woon noonu sax. nii mu mel bu des woon bu nee na ni nga mel bu des boo desee woon mel nii. ko gis am lu nee na ku ku la gis am lu mu la war a fay. fey ko bor fay ko bor. nee na ca loola sa jur la jóge nee na mi ngi ñaan Serigne Touba ak Cheikh Ibra. nee lii nga sóobu. nee na yàlla defal la ci ndam amin nee na akuk yokku. nee na ak ñi ngi ko àndal ñëpp. ak mucc ci am ndog ne li nga bëgg a dimbale njabootu islaam gii ne yàlla defal la ci ndam bu baax lu kawe sa njort uh, nee na doomu aadama dafa rëy nee na boo leen yéenee dimbali rek alxalxu iyaalullaah nee na yàllaa ciy dugg nee na nee na moom am na ci xel mu dal bu baax nee li ci laal ci fas yéene gi ànd ak fas yéene politique ci dugg ci politique bi nee na ñi doon politique bu njëkk nee na suñ ko doon defee nii nee lu bare luñ cay seexlu nee eh, ndax rafet na lool nee di nemmiku kilifa yi sol nee na sollu lislaame wax ju tedd du tegu ci taalibe eh, nee na loolu am na boroom xam-xam bu waxoon ni bu ci politique mujjee nee du am charit nee na ñëpp ci mën a dugg nee na mën nga cee tànn naim, nee na mën nga cee wuti naayim nee na mën nga cee yële koy tuddloo doom nee na defin wii moo rafet nee na xubbul watal nee na minal imani, yi nee na sob sob dëkk ci ngëm yàlla la bokk nee na sëñ bi nee na mi ngi sant mbooloo bu baax nag nee na yàlla neen yàlla jàppale amin nee moom mii ku mu àndal ku ne moom Modou Gueye nee day mën a yóbbaale ñu bari nee day mbokkum ñëpp te doxinam rafet na nee na la sëñ Abdou waxoon rek la nee mooy tax ku ko dégg ku ne nee na ñaan rek nga mën a def nee na dañu woon nguur yàllaa koy joxe moo koy xañe moo koy jox ku ko moo koy jox ku ko neex di ko roccee ci ko neex. ne teral ku ko neex. Ah, ne safaan ba it mooy xool ku ko neex mu teg ko ko. ne loolu alxuraan la.